wax ne seeni député ci seni gox ya naa ne yéen wa département Pikine tay kontan ngeen bu baax a kuko ku ko wax ak ku ko waxul li présente fii ci cérémonie bii ñu nekk di def ci député mën nañ wax ne tey Sénégal moo leen seet dugg ci gox goxaat yi waxtaan ak askan wi ci loi yi nga xam ne dañ ko voté assemblée national mu am ay impact direct ci société bi waxtaan ak yéen aussi ci li président Macky sàll def ci réew mi de 2012 à nos jours waxtaan aussi ak yeen ngeen lan mooy seni jafe-jafe su ko bu du député Pikine yi rek ñooy la parole pour wa Pikin ñun député yi toog fii yépp dañuy nekk porte parole di leen yóbbul jafe-jafe fële nga xam ministre bu ci nekk waxtu wii di du yàgg dara semaine bii di ñëw dinañ commencé di jàll benn assemblée bu su fekkee ne seeni jafe-jafe ñun xam nañu ko danañ mën a nekk assemblée di leen ko joytul di ko wax ba mu am saafara ci seeni gox xëy na du ñu mën a développer lépp mais bëggoon naa wax rekk ci benn loi boo xam ne dañ koo voté mu jëm ci jigéen ñi muy la loi sur la nationalité ku nekk xam na ne jigéen bu masana sëy ak koo xam ne du sénégalais daanul am possibilité may ko nationalité sénégalaise ci nguuru président Macky sàll ak député yi nga xam ne ñoo nekkoon douzième législature ñenn ñi ñëwaat ak treizième ñoo ko voté mais lépp nag dañ ko tënk gouvernement du Sénégal présenté ak assemblée nationale comme projet de loi ñu voté ko à l'unanimité jigéen ñi gis ci seen bopp tey képp koo xam ne jigéen nga sëy ak ku sa doom man nga ko may nationalité sénégalaise benen bi rek nga xam dafa am impact direct ci famille yi ku ne xam ne ñun voté nañu loi bi nga xam dafa wañi location Nam bu fekkee am na ay jafé jafé batay président Macky Sall moom président bi nga xam mo moo yërëm ñi mo bëgg jigéen ñi mo dimbalé jigéen ñi 69 parlementaires lañu am au niveau de l'Assemblée nationale lolu buñ ko amé loi sur la parité moñu ko may lolu moo tax ngeen gis aljuma passé député yëpp non inscrit majorité opposition takku nek ben say pour ñu jox jigen gëddam jox jigéen plaasam muy huitième vice présidence bi nga xamné jigen jigéen ko ñu ne foqet jox ko góor ñu takk ñun ñep taxaw ne jigen rek ba jigen jël nako représente la population, accompagne le gouvernement, accompagne la politique du président de la République. ba fi ñàkkoon courant waxuma ñëpp de waaye ñu bari ñu courant ci àll bi ñu bari jàmbatatuñu courant ci fi nga xam moy la région de Dakar li waral moy bonne politique énergétique bi nga xam gouvernement am kon tay député yi ont rôle bu am solo bu salaire yi député ñoo voté bu député voté wul salaire du am bu député voté wul duñu tabax école bu député voté wul duñu tabax commissariat de police bu député voté wul du financer ay jigéen kon defe rôle député Ils solo wala amul solo ñu né lan moy rôle député ñu né ministre bo xamné voté nañ le budget budget boobu député bi am na sañ-sañ ne ko budget bi ñu la votaloon waroon nga ma fee defal commissariat de police man daf maa ñor ndax sécurité moom dañ ko bëgg dañ koo bëgg commissariat yi bëgg nañ ñu gën ñu koo yokkal ci banlieue bi ñu tënk wax ko ci département Pikine xam nga léegi président li mu def dane fàng ku bëgg a gis da gis ku bëggut a gis nag am bët yu lëndëm doo mën a gis waaye président defe naa ne bilan Sénégal xam nañu ne Macky Sall li mu fi fekkoon 2012 ak li fi nekk am na différence kon bilan président ñëpp xam nañu département Pikine inondation ay milliards nguur gu amul volonté du jël ay milliards di ko gas ci suuf ku weddi waa laajtal waa Dalifor fa ma dëkk inondation jeex na waxoon la caravane seeni député ci seeni gox djuk mun nañ wax né l'objectif a été atteint li ngi taxoon a gis nañu ko suñu xol sedd na li tax ñu né gis nañu ko biñu ñëwé fi ci Pikine déglu nañu population yi ñu xam d'abord lan moy rôle député député yi wax leen ko de manière fort claire ñu déglu leen itam ñu wax ñu seeni doléance ñu déglu leen itam ñu yëpp ñu

mais ñun député yi dinañ ko porter plaider ko ba blocage boobu jug ndax liggéey bi mën a yegg beneen bi ci des wax ngeen ko mu jëm ci wàllu sécurité dans la banlieue de Dakar loolu na ngeen xam ne seeni député inshallah, allahu rabbi dinañu ko porter ndax ay jigéen lañu te yaakaar naa ne bu wax sécurité jigéen ñi ñoo ci gën a sonn kon dinañ ko porter devant l'exécutif pour que fii ci banlieue bi ñu renforcer ko en poste de police renforcer ko en gendarmerie ba ko defee insécurité bi dañ fi une bonne fois pour tout. na sen xel dal dafa melni rek sen kàddu lañu jël si won inshallah allahu rabbi gogu googu dugg na ci ay nopp yu wor té soobe yalla dinañ ko yobbu fañu ko wara yobbu yóbbu bi ci des nag damay wax rek ak jigen ni ngeen ko défé mobilisation bu rafet bi si ngeen dëkk dama leen di ñaan jamono yi ñu ngi toll ci wutum parrain département Pikine vraiment béy ngeen ci seen waar bu rafet a rafet dama leen di ñaan nag seen parrain yooyu ngeen encadré leen bu baax a baax bu leen kenn këf bu leen kenn nax ngeen encadré leen jusqu'au soir du 24 février ndax ñu mun voter son excellence monsieur le président de la république mu daan leen jël bu set wecc ndax nit tam boo ko mënee da nga koy daan daan bu amul benn werante fi nga xam ne nag foofu bëgg a mujjee ndax dafay guddi dafa am rek benn question boo xam ne bëgg naa koo laaj opposition particulièrement le PDS ndax PDS dafa nekk parti bu mag fii Sénégal PDS nekk parti bu nga xam ne sortant au pouvoir ñuy dem élection nekk à quatre mois des élections présidentielles ba léegi mënuñoo wax lu leer dañ leen di laaj lan la nar ndax amuñu candidat ñëpp xam nañ ne Karim Wade mënu fee doon candidat ndax yoon moo ko tënk kon nag ñoom seen plan B bi ñu nar la ñu bëgg ñun jigéen ñi ñu leeral ñu ko nañu leeral plan B boobu parce que ñun ñoo takkute te duñu nangu Sénégal kenn jaxase ko duñu nangu Sénégal kenn andi fi instabilité bu dee loolu moom moo nekk seen mébét ñun dinañu taxaw nekk benn say wax ak ñoom nag ñu gindi ñu leeral ñu bu fekkee ne dañoo am plan B si jàmm ak salaam ñu wax ko bu fekkee ne nag bëgg a dugal instabilité moo leen tax a jóg ñu xamal leen léegi ne ça ne va pas passer parce que les Amazones du président Macky Sall taxaw nañ les Amazones du Sénégal taxaw nañ pour que Sénégal lu fi am rek nekk jàmm ak salaam.